leen di nuyu te di leen ziyaare ci nuyoo boo xam ne dañ koy teg ci loxol sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne mooy xalifab sëñ Daaru Xasan di ko ñaanal mu yàgg te ak mboolem njabootu sëñ Xasan Njaay gi yëpp ku gis jataay bu màgg bi muy jataay bu tedd bi muy jataay boo xam ne ñu ngi nii toog ak xalifab sëñ Daaru Xasan muy sëñ Abdul Xaadir ak ay kilifaam ak ay jëwrinam ñu toog ci jataay bu tedd jataay bu am solo toog ak jëwriñam sëñ Moustapha Fati ak sëñ Ibrahima jëmm mi nga xam ne moo yor kàddu kër sëñ Daaru Xasan ak mboolem njabootu sëñ Daaru Xasan gi ñu toog ci jataay bii nag ngir menn mbir moo xam ne daa dal ci sunu kaw te mooy mbirum sëñ Cheikh Baara Ndiaye mi nga xam ne yàlla dogal na yoon teg ko loxo boobaak léegi mu yàgg lool sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne nag mooy xalifab sëñ Daaru Xasan woote jataay bii ngir ñaan ci ñi nga xam ne ñoo ko teg loxo ñu jàppandal loolu ñi nga xam ne moom lañ ko def mooy ñu tëj ko foofii ca ndakaaru sëñ Abdou Khadir mi ngi sàkku ndimbal ak ñaan ngir ñu jàppandal mbirum suñu Cheikh Bara Ndiaye moom waaye di sant bu baax nag sunu kilifa ñun ñëpp mu Cheikh Mouhamadul Mountakha sëñ Abdou mi ngi koy yóbbante ak cant di xamal ne mbir mi it bam amee ba tey taxaw na ci ay taxawaayu am solo kon mi ngi koy sant bu baax ak mboolem kilifa yi diine yëpp Cheikh Mahi Niass xalifab Cheikh Ibrahima ñas ak Cheikh Moustapha Sy borom moustachidin wal moustachidaat ak mboolem kilifa yi réew mi ñoom ñëpp yëg nañ seen taxawaay yi ci def Cheikh Abdou Khadir wax na ne taxawaay yooyu moom lañ ko defal ndax Cheikh Baara doomam la léppam la mbokkam la ñoo bokk maam muy sëñ Daaru Hasan kon sëñ Abdou Khadir mi ngi sant bu baax kilifa yooyu taxawaay yi ñu ci def ak eh, jéego yooyu nga xam ne def nañ ko ci mbirum Cheikh baare Ndiaye mu leen ci sant bu baax di leen di ñaan nag ci ñi nga xam ne ñoo ko teg loxo ñu jéggal ko te wayafal teg gi ko teg loxo ndax kenn la ci njabootam kenn la ci moom koo xam ne lii ba mu dalee ci kawam ba tey wax dëgg fa yàlla am na ci ak tiis woo xam ne bu ko mënoon a saafara tey tey tey tey mu jeex tey tey waaye lim man nag mooy ñaan mi ngi ñaan boobu ba tey mi ngi gën a ñaanaat nag. ñi nga xam ne ñoo ko teg loxo ñu woyafal teg loxo gi ndax sëñ baarakat ay mbiram tool na foo xam ne fii ñu toll nii jot na na képp ki kilifa diine nga jóg moo tax sëñ Abdou Khadir daj la njabal sëñ Daaru Asan gi yëpp ngir ñaan ki nga xam ne mooy njiitu réew mi moo woyofal teg googu moo ko teg loxo ndax daa wér di wér di goo xam ne fii ñuy wax ak yéen àgg na foo xam ne amatuñ ci moom yaakaar ci wér di googu kon nag mi ngi sàkku ñu jéggal ko te delloo ko ci ak njaboot ndax njaboot ga jaaxle nan te ci moom la mu leen wéeru kon nag Sëñ Abdou Khadir mi ngi ñaan ki nga xam ne moo jiite réew mi muy Macky la ak mboolem ñi mu àndal ñëpp rek ñu woyofal mbirum siñ Cheikh Bara Ndiaye mu mën a delluwaat ci njaboot ga ba mën a delluwaat ca daaraam ja delluwaat ci ab liggéeyam ba mën a dajalewaat lu mën a indi addiya ba lu man a yar ak njabootam loolu Sëñ Abdou Khadir mi ngi koy sàkk mu ngi koy ñaan lii nag ay kàddu la yoo xam dañ koo yëkkati woon ba pare nag Sëñ Abdou wax na ne mi ngi sant Sëñ Abdou Samad moom Sëñ Chouaïbou ci taxawaayam bu rafet te am solo ndax mboobaak léegi moom it noppaluwut jéego yi mu ci def yëpp it yëg na ko wax na ne moom la ko defal kon mi ngi koy sant bu baax moom suñu Abdou samat moom suñu Chouaïbou ndax jéegoom yooyu rafet na te lépp rek mu ngi ko def ngir jëmmi alxuraan waaye def ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa waaye def ko ngir jëmmi sëñ Daaru Xasan kon loolu bu ko defee moom la ko defal kon sëñ Abdou Khadir daal kàddoom mooy kàddu yi nga xam ne sëñ Ibrahima jëmb dana ci ñëw waaye lii ak ubbi la woon rek ngir ñu xam ne jataay bi li ko waral mooy mbirum suñu Cheikh Bara Ndiaye Daaru Ndiaye gépp teew fii ci kanam sëñ Abdou Khadir ngir sant kilifay yi boobu ba tey liñ ci doxee ak niñ ci waxee waaye di ñaan nag fii mbiri toll nag ñu jeexal ko mu jeex tàkk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon sëñ Abdou Khadir mi ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ngi fi toogal Cheikhuna Ahmadul Khadim di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ak àggale ay mébétam ci diina ji ak yoon wi ak bokk gi ak réew mi ak adduna bi yëpp moom sëñ Muntaxa ànd ko mboolem ay rakkam yu mu seqal sëriñ bi ak ak sëti sëriñ bi te ka ca jiitu kañ cay jiital di sëriñ Ahmadou Mokhtar mi nga xam ni moom itam moo fi toog toogaayu Cheikh Mouhamadou Moustapha ci Darou Khoudoss ak rakkam ak mboolem sëti yoon wi ak doomi yoon wi ak taalibe yoon wi kon nag ni ko sëriñ xaadim imaam waxee rek jotaay bi li ko waral mooy mbokkum jullit mbokkum taalibe mbokkum dëkkandoo mbokkum laqarab fii ci dëru Njaay di Seex Baara Njaay mi nga xam ni euh, sunu xame sunu jaxasoo tàmbalewul ci moom ma nga tàmbalee ci ay wayjuram ak sunuy wayjur ak mag ñi fi wuutu wayjur yi ba agsi ci nun kon ñiy mag ñi fekke woon loolu lépp bokk gi muy way juróom sëñ mën jaay ma waaw sëñ mën jaay jaara mi nga xam ne mm. ah, doomi ndey la ci sëñ doom xari mi nga xam ni sëñ doom xari di doomi sëñ bàcc ma sàmba ummi mm. di sëtub sëñ Daaru Asan mm. kon loolu tax na mbokk la kon loola mag ñi dara ump leen ca na bokk ga doon doxe jëflante ba jaxasoo ga lépp doon rafet ba agsi ci njaboot gi ba tey kasaalika seex baara mi it loolee bi mu dikkee yàqu ci dara la doon bokk ga jaxasoo ga kóllëre ga xëy na bu dee ci wàllu wasila ak njébbal moom kër sëñ daa kër baara la way juram bokkoon moom itam foofa la féete ci wàllu wasila waaye nag bokk gi ak jaxasoo gi ak jëflante gi fii ci kër sëñ Darou Assane loolu it moom naka jekk ca way jur ya ba léegi ñu ngi koy séq lépp loo xam ni it kër sëñ Darou Assane ña nga ca moom Cheikh Bara bu ko yëgee dana ca ànd ak ñoom ànd def ca taxawaay bu mat sëkk mm. ah, ci taalibe rek lañ ko xam macha allah di ko am njariñ ci réew mi niñ mën a waxe ndax bu fekkee ni nit góor góorlu na ba mbooloo di wéy ci moom di lañuy ñuy jël la am ci seen wërsëg ak li ñuy yëngatu di jaara ci moom kon kooka bu ñëpp defee ni moom mooma réew day jub te Seex Baara am na taxawaay ci bindeef yi bu baax a baax loolu moom ku ko xam doo ko werante am nay taxawaay bu baax a baax te loolee lépp ci njàmbaar ak góorgóorlu la ko defee kon kooku ku am njëriñ ci réew mi la kon nag ni ko sëñ xaadim imaam waxe sëñ abdul qadir xalifa bi sëñ Darou Assane li tax mu wootee njaboot gi nii ñu toll nii te ñi ci ëpp di sëti sëñ Darou Assane ak i sëtaatam ak taalibe yi kon loola lu ko ñor la waaye nag bu ngeen seetloo it da ngeen gis ni Cheikh Baara bañ ko tegee loxo ak léegi mat nay weer damay jàpp ni ñaari weer yi dana teg jëm ñett kon loolu ab diir la te yéen a ngi soog a gis ko sëriñ Abdul Xaadir mu toog dajale njaboot gi di yëkkati kàddoom di ci wax kon loolu luñ ciy seetloo moom kon doonul wala kër sëñ Jason doonuñu nit ñooñ lu jóg rek ñu daal di jóg dañuy teey xool ba xam kii lim nekk dégg la wala du dëgg ndax kër sëñ Jason loolu rek lañ xamee jàpp seenum jàmbur jub nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla gëm sëñ Touba am nañ sëñ Touba topp sëñ Touba topp ndigali sëñ Touba kër sëñ Darou Assane ca sëñ Darou Assane ba léegi loolu lañ leen xame kon nag moo tax su yëngu-yëngu bu adduna amee duñ daal di jóg rek ne ca rajax dañuy teey xool ba xam lii fu mu ak fu yem kon nag sëriñ bi bi mu xoolee déglu ba dégg ni ñu wax ko ne Cheikh Bara kat yi. doon nañ ko àtte waaye biñ ko àttee liñ wax ki ko mooy liñ doon ñaaw njort ci moom kon mel na ni du dañoo amoon yaqin ci lu mu def ba tax ñu jàpp ko mm. waaye nag kon am na luñ ko ñaawe woon njort te yoon sañ na képp kum ñaaw ci yow njort lam ñaaw ci njort mu seet ko gëstu ko ba xam dëgg la wala déet ndax wér na wala wérul mm. kon mu mel ni loolu deesu ne liñ def dañ ko wërta def yoon am na sañ-sañ ci loolu waaye nag buñ demee ñaaw njortu ci moom ba yàgg ñu gëstu ba gis ni lañ doon ñaaw njort gisuñu ko ci moom ak wéradi gii mu wéradi ba nekk ci diggante dund ak dee loolu nag moo tax sëñ Abdou Khadir mbir mi ñor ko yitteel ko ndax suñu boom nee na innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum mbooleem ñi bokk pas-pasu gëm yàlla ay bokk lañ te bokk googu suñu boom def noo digal nañ ko yéwénal kon nañuy dimbalante di jàppalante ci saa boo xamee ni nit ki ba xam dem nañ ba xam ni xëy na lii ak ndogal la gu mënul woon a ñàkk waaye nag du ca du caageenu jëf wala wax yoo xam ni da ko def te muy loo xam ne dañ ko caa war teg loxo kon daal sëriñ bi bi mu déggee ni atte nañ ko nee nañ liñ ko doon ñaaw njort gisuñu ci dara ànd ak nag mu wéradi wéradi gu àgg fii mu àgg kon loolu moo tax sëñ Abdou Khadir dajale njaboot gi tey di ñaan nag état bi tàmbalee ko ci président Macky sàll ak mboolem ñi mu koy àndal ministère de l' intérieur ak mboolem ñi nga xam ni loolu seenu wàll la ñu jéggal Cheikh Bara bàyyi ko mu dellu ci këram dellu ci liggéeyam ànd ak ñam àndan woon ca liggéey ba di dimbale ñim daa dimbale ndax ku am njariñ ci réew mi la koo xam ni danga man ni nangami nit ñi ngi ca sa ginnaaw la jëfandikoo ci seen kër ci yow lay jaar kooku ku baax la kooku jàmbaar la kooku sénégalais bu baax la kon daal du jar guddal ñi ngi ñaan rek te sëñ Abdou it kàddu yii mi ngi koy wéer ci kàddu kilifaam xëy na bu fekkoon ni lii bi mu xamee léegi dégg ci turu sëñ Mountakha kon xëy na lii saxit du tax mu di ko def waaye nag gannaaw sëñ Mountakha kaddoom jib na ci ndawam ñu wax ni sëñ Abdou Samad dem na fa ngir ci ndigal wala ci turu sëñ Muntaqa loolu moo tax sëñ Abdul Xaadir mi nga xam ne Cheikh Baara Ndiaye nun la gën a jege nag bu doon bu doon ku ñuy laajte ndax bari na ku ci yëngu te xamoo koy Cheikh Baara Ndiaye wala lu dul Cheikh Baara Ndiaye nga xam waaye nun ñii nga xam ne ay waajuram nag ñoo dëkkoo nag ak suñuy waajur mu judd ci biir loolu ban àgg fii nu àgg yàgg a jaxasoo seqalu ne kon Cheikh Baara bu dee mbokk moom suñ mbokka mm. bu dee wàllu njébbal nag taalibe bépp guy Mbinda taalibeb sëñ Moustapha moom Cheikh Abdoul moom sëñ Sidi Mokhtar moom Cheikh Mouhamadou Lamine moom Lamine waaye kon daal eh, ak mbokk ak jaxasoo ak wëllanante tem yàgg lool tàmbuleewul ci moom moo tax sëñ bi sàkku lii mu sàkku kon daal ci gàttal lu nuy waxaat li nu waxoon rek la nuy waxaat ñi ngi sàkku daal tàmbulee ko ci Macky Sall ministre l'intérieur ak mboolem ñi nga xam ne ñoo yor wàllu atte biñ ko attee ba xam ni liñ ko doon ñaaw njort ci moom nekkul ci moom ñu bàyyi ko nag ànd ak wéré di nag bañ ñu ñaaw njort day dee day dund kon nag ñu ngi sàkk ñu ñaan ko mu dellu ci liggéeyam ànd ak ñam doon àndal jërë ngeen jëf sëñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu